leçon bi tey nag leçon bu gàtt lay doon muy conjugaison verbe avere ak verbe essere in presente dell'indicativo c'est-à-dire la conjugaison du verbe avoir et du verbe être au présent de l'indicatif mais nag en langue italienne. io sono io sono mooy man maay tuusey tuusey mooy yow yaay luuy ee luuy ee mooy moom ku góor ki mooy ley ee ley ee mooy moom ku jigéen ki mooy nooy siyaamu nooy siyaamu mooy ñun ñooy voy siete voy siete yéenay loro soono loro soono ñoom ñooy buñ ñëwee ci verbe avere io ho io ho man am naa tu ay tu ay yow am nga lui a lui a moom ku góor ki am na lay a lay a moom ku jigéen ki am na noi abbiamo noi abbiamo ñun am nañ voi avete, voi avete, yéen am ngeen, loro hanno, loro hanno, ñoom am nañ. di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf. kuy guri ji nañ fa jéem a def yóbbu keseŋ bi jafandul dee jafandul naa.